mbokk internet limametti point com dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci seen naafal ak juróom ñaareelu guddi ci weeru koor ñu war ci am juróom benn rakk rakk bu ci nekk ñattali fatiha benn yoon kul ya ayuha kafiruna juróom ñaari yoon ixlaas juróom-ñaari yoon sëriñ bi nee na ku ko def incha allah ay ju ci ne des na ko ci bindal ay yiw dana mel ni ku saraxe junni dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko ca bindal tuyaaba yu toll ni li mu bisu àdduna yépp araf yi ci ne des na ko ca tabaxal kër gu rëy ca aljana njàngale mi nag ñu ngi ko jëlee ci teer sëñ soxna bu Mbàkke moom sëriñ Touba Limametti point com mu ngeen di ñaanal kooru jàmm